الحمد لله وحده والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد بكي جلدي نيونغي لين دي دينك دي دينك سونو بوب راغال يالا سي داف اندي گالم اك باي اي تريم مبكي جلدي ني خامني سونو بروم تبارك وتعالى واخنا سي القران ني امول كين نيت koo xam ne am na genn kàddu gu muy wax amul nit koo xam ne am na genn kàddu gu muy wax lu dul am na samay jaam yu toog fi moom di ko bind kon lépp lu nit wax bind nañ ko maa yalfidu min qawlin illa ladayhi raqibun atid lum wax lum mën a doon rek bindees na ko moaz ibnu jabal radiallahu taala anhu nettali na xadis bu gudd a gudd mu jële ko ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ma ko cay wax ne ko xanaa du ngeen ñëw ma wax leen li nga xam ne moo dajale mbirum lislaam ñu ne ko oxu kay yow yonente yàlla bi mu ne leen li dajale mbirum lislaam ba noppi nekk kenul lislaam ba pare nekk njobbaxtanul lislaam muy la ci gën a kawe ñu ne ko oxo kay yow yonent bi yàlla bi mu ne leen rasul amril islaam boppu mbir mi mooy diine mooy nangoo dugg ci diine al islaam jox sa bopp yàlla kenu la nag la ko téye nee mooy julli njobbaxtan la nga xam ne nag moo ko kaweel mooy jihaad nee na bi yonente bi alayhi salaatu wasalaam waxee loolu mu ne xanaa du ngeen ñëw nag ma wax leen loo xam ne moo boole yooyu yépp ñu ne ko uxu yow yonente yàlla bi nee na mu tàllal làmmiñam gu tedd wa daldi koy téye ci loxoom ne ko fegal ma lii fegal ma lii maanaam téyal ma kii muy làmmiñ wi ne Muaas ne ko ah yow yonent bi yàlla bi ndax yi nuy wax kon nun dañ nu koy jàppe ndax lii nuy wax dañ nu ci bindal dara kon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko ah yow muas ah yow fi nga nek sori na di sakilat ka ummuk waxin la ci arab bo xamne ne ku wax lu kéemaane lañ koy wax ne ko ndax du nit ñi ëlëk la leen di tabal sawara ci seen xar kanam yi ñuy jootu di daanu sawara ndax lenn la lu dul li ñuy wax ci seen làmmiñ yi kon wan na ko ne la ñuy wax ci làmmiñ yi mooy la ëpp luy dugal doomu aadama ci sawara yonent bi alayhi salaatu wasalaam waxaat ci beneen xadis bu wér mu ne jaamub yàlla bi léeg-léeg mu wax genn kàddu benn baat benn mot benn terme mu wax ko boo xam ne bu naqari yàlla la nee na te fekk moom sax joxu ko benn importance jàpp ne lii mu wax daal du dara waaye nee na loola ëllëg mu tàbbal ko ci aj ci sawara tàbbal gu xóot goo xam ne ci biir jahannama loo xam ne fa muy yooroo fa muy daanoo diggante bi dana mat juróom-ñaar fukki at kon fu xóot a xóot la kon kàddu ci doomu aadama lu mat a sàmm la lu mat a wattu la lépp luy jóge ci kàddu doomu aadama mu sàmm ko kon loolu moo tax ci xutba tey bii ñu jagleel ko ixdar min shirki al wattandikul bokkaale goo xam ne day dugg ci ay kàddu yoo xam ne yaa koy wax defe ne lu amul solo la fekk lu rëy fa borom la am na ay baat yoo xam ne nit ñaa ngi koy wax ci seeni làmmiñ te bàyyiwuñ ko xel fekk yooyu mën na leen lor ci seen diine mën naa yàq sax seen tawxid wala yaasu billah kon lenn ci baat yooyu lañ dajale ngir ay misaal ngir jullit bi mën koo wattandiku ndax mu mën a aar diineem ba ca jëkk mooy kàddu bu soobee yàlla soob la wala bu soobee yàlla soob diw te diw moome doon doomu aadama ibnu abbas nee na dafa am benn bi am waa ji ñëw ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam waxtaan ak moom ba àggal ne ko bu soobee yàlla soob la day mais bi mu daataan àggal yonente bi alayhi salaatu wasalaam ne ko tëyal sa làmmiñ mu noppi mu ne ko ndax danga maa bëgg a def moroomum yàlla neel bu soobee yàlla moom dong ndax coobari suñu borom tabaraka wa taala moo ko yor kon jullit bi war naa wattandiku coobare ca lay war a am te amagut mu di ko mu di ca boole keneen ku bokkut ak sunu borom tabaraka wa taala kon borom bi tabaraka wa taala képp moo yore coobare kon la ngay wax na yem ci insha allah bu soobee yàlla bokk na ca yooya ñaareel ba léeg-léeg nga dégg kàddu yi doomu aadama yoo xam ne dañuy wax ne diw laa yaakaar àdduna ak alaxira loolu lu rëy la loo xam ne mën naa yóbbe nit ki sax wal iyaadu billahi tàbbi ci bokkaale ndax yaakaar ak xemmemtéef loo xam ne dañ koo joyal jox ko kooka di ko séentu tey ak ëllëg loolu sunu borom tabaraka wa taala rek moo ko jagoo ay alxuraan yu bare bare bari yoo xam ne mooy tegale lo tegtale loolu mu ngi nii borom bi tabaraka wa taala nee na ñi nga xam ne dañoo gëm yàlla boole ko gàddaay boole ko jihaad fi sabilillah nee na ñooña di seen yaakaar ca lam aju mooy yërmaande seen borom seen yërmaande borom lañ yaakaar tegaat ca ne ñi nga xam ne nit ñu baax ñi nga xam ne ñoom la nit ñi jëm ci ñoom am ci ñoom yaakaar ba di leen wax wax ju mel noonu di wax ni yow laa yaakaar wala ñu di leen ñaan sax nee na ñooña ci seen jëm bi bopp ñoom ñu baax ñooña di loola dalu leen ndax ñoom seen yaakaar yépp yàlla lañ ko wékk nee ñooña seen yaakaar jépp yàlla lañ ko wékk mbugalum yàlla dong it lañ lañ ragal kon waaye waaye jaamu yàlla bi bu fekk jaamub yàlla boo xam ne ku baax la moom di yonent wala muy nit ku baax nga xam ne léppam yàlla la ko aj moom dong la yaakaar moom dong lay jaamu jotewut ak keneen dara bokkaalewut nga ñëw moom jëm ju baax jooju yow nga def ko ab bokkaalewukaay di ko wax yow laa yaakaar wala yow laa yaakaar àdduna ak alaxira kon loolu doon na loo xam ne jullit bi war na war naa sàmm làmmiñam ba moom na mucc ci yu mel noonu bokk na ci yooyu ay kàdd yoo xam ne nit ñi dañ koy wax léeg-léeg fekk lam làmboo lu rëy rëy la mooy saxal ne borom bi tabaraka wa dafa am doom donte waxuñu ko ci seen làmmiñ léeg-léeg nga dégg benn terme boo xam ne bu siiwle ci suñ société bi nit ki wax ba ne maam yàlla maam yàlla wala yaasu billah loolu kenn du ko wax ndax boo dee maam la kon li muy firi mooy am na kum jur mu jur la kooku musiba la xëy na ki koy wax ci làmmiñam la koy wax gëmut loolu ndax loolu ku ko gëmoon moom dangay génn lislaam ku gëm ne yàlla jur na kenn loolu kéefër la day génn nit ki lislaam waaye nag ka koy wax ci làmmiñam te jubluwu ci loolu war naa wattandiku aw làmmiñam mu di ci génne loo xam ne moom ci boppam kéefër la kon kooku kàddu la koo wax ne kenn du ko wax sunu borom tabaraka wa taala nee na lam yalid walam yuulad jurul kenn kenn juru ko yi ba ñu waxee ne Usayr doomu yàlla la nasaraan yi ñu ne Isa doomu yàlla la borom bi def ne dalika qawluhum bi afwaahihim mu ne loolu de lu wax ci seeni làmmiñ la waaye nag yudaahiwuna alladina kafaru dañ cee nuróog ñi nga xam ne ay yéefar lañ loolu su ko nit ki waxoon gëmu ko sax nuróo gim nuróo waxi yéefar jaar na mu daw ko wattandiku moo tax borom bi tabaraka wa taala teg ci ne qaatalahum allahu an ñooñu yàlla nañ alku fu leen mën a fekk loolu la suñu borom tabaraka wa tëje aay jooju xam ngeen ne ci njëlbéenu suuratul kaf yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi ko boromam yebalee bokk na ci yim yor war ko jot li nit ñi li mu wax ne wa yundar alladina qaalu ittaxada allahu walada mu ñëw ngir jàjj xëbal xëpp ñi nga xam ne dañuy wax ne borom bi tabaraka wa am na doom kon bépp kàddu boo xam ne ab jullit a nga koy wax mu mën koo jural loo xam ne luy nuru loolu la na wattandiku loolu na sàmm làmmiñam ba yar ko ci lépp lu muy wax lu mën a doon lu jublay doon dem na sax ba ay kàddu yu ñàng ñàng yu doy waar yoo xam ne laa chaque ne kàddu yu kéefër yu rii la ñi di ko wax jëmale ko ci suñu borom tabaraka wa am na ñuy dem bay wax ne eh, yàlla tey jii xale bu góor la boo xam ne dafa sol pantalon léeg-léeg ñu dem ba ne dafa sol sax ab jiin wal iyaasu billah loolu ay kàddu la yoo xam ne kàddu yu kéefar la képp ku dégg ab jullit di ko wax war nga koo jàjj mu dellu gannaaw ci loolu xam ne loolu kenn du ko wax borom bi tabaraka wa taala sorente nag nga di ko nuroo léeg mbindeef surtout na nga wal ba di ko di ko nuróoleeg mbindeef yi nga xam ne yow société bi ngay dund ña fa gën a sàggan ñoo koy def ñooy def yu lu ma tawattandiku la ab jullit du ko wax ci aw làmmiñam te jullit bi dafa war a daw làq diineem ci lépp loo xam ne lu ko yàq la bokk na ci kàddu yooyu kàddu yoo xam ne siiw na ci jamono yu mujj yi mooy nit ki nga defal ko lu baax mu ne la yàlla na la diw sàngam fay tudd turu nit ku baax wala turu ku mën a doon koo xam ne rafet na ci moom jort mu ne yàlla na la fay loolu njuumte la fay ëllëg la jaam ya di def ci ay jaamu yàlla borom bi tabaraka wa taala rek moo leen koy fay ka nga rafet ci moom njort ba jàpp ne moo lay fay kooka yàlla lay séentu mu fay ko moom kon loolu pas-pas la boo xam ne jullit yi war nañ koo dundal ci seen bopp war nañoo xam ne ka nga xam ne boo defee lu baax mu fay la boo defee lu ñaaw moo lay mbugal kooka kenn rek la mooy sunu borom tabaraka wa taala te lu yàlla moom kenn du ko jox keneen loolu nañ ko wattandiku nit ñu baax ña àndoon ak yonent ba sallallahu alayhi wa sallam dana ñii ànd ak seen coono bi ñu def ci lislaam doo leen gis mukk ñu dépensé benn dépense moo xam bu ndaw la wala bu mag ci yoonu yàlla wala ñi jóg di dox fi sabilillahi di jihaad di jaar ci xur yeeg a génn nee na luñ mën a def ci yëngatu yooyu yi ñuy def ginnaaw génn nañ fi sabilillah nee na yàlla da leen koy bindal lu tax ma koy bind mu ne li yajziyahum nee na ngir yàlla fay leen li yajziyahum allahu ahsana ma kaanu yaamaluun li gën a rafet ci lañ doon jëf mu fay leen ko kon fay sunu borom tabaraka wa taala moo koy def moo tax boroom bi tabaraka wa taala ne ee yéen nit ñi ragal leen seen boroom te ngeen ragal bis bis boo xam ne mi ngi ñëw nga xam ne baay du caagi ni mooy fay doom baay du fay doom doom itam du jëriñ baayam dara du ko mën a fay itam su boobaa mu ne lii day lu leen yàlla dig wax leen ko te digub yàlla du jaas mu ne wattandiku leen nag àdduna war leen wattandiku leen itam iblis war leen kon aay boobu aay bu mat a bàyyi xel la ci lu mel noonu kon borom bi tabaraka wa mooy fay ñépp ëllëg moo tax mu ne li yajziya li yajziya allahu kulla nafsin ma kasabat borom bi tabaraka wa taala nee na bakkan bu nekk loo fàggu muy lu baax wala muy lu bon nee na mooy ki nga xam ne moo la koy fay moo tax sunu borom tabaraka mu bokk ci melokaan yeeg turam yi muy maaliki yow mi diin yow ji nga xam ne da koy jàng ci fatiha saa booy julli bu nekk jàng maaliki yow mi diin la muy firi mooy ki nga xam ne mooy boroom ëllëg moomeel goo xam ne mayu ca kenn dara lépp lu aju ci ëllëg moom fay ak jéggleeg loolu lépp ci loxo sunu borom tabaraka wa taala du yonent du malaaka du nit ku baax kum mën a doon bu bis boobaa kay la ngay séentu mooy borom bi tabaraka wa taala jéggal la defal la tiraanga tabal la ajjana ñépp loolu la ñuy séentu bu bis boobaa kon wattul say kàddu yoo xam ne yaa ngi koy wax mu lor la fii ci àdduna fekk la nga ci jublu yow mooy wane ne fonk nga nit ki wala bëgg nga ko wala yu mel noonu ba mu loola tàbbal la ci loo xam ne ba ëllëgee da dugal sa bopp ci giraawaali goo xam ne kookee nga doon wax loola ci moom amaana moom daw na ba mujj te bu boobaa yow man nga am jafe-jafe bokk na ci geneen kàddu bu nuroog googu lool boo xam ne warul woon a mën a jib ci ab société boo xam ne ay jullit a fay nekk mu yàlla na diw sàngam yokk saw fan yokk fan aw fan kenn ku nekk xam na ne borom bi tabaraka wa taala rek moo ko yor waaye na diw guddal saw fan moom wërta jëm ci keneen ku mën a doon ku lu sunu borom tabaraka wa ndax loolu bokkaale la goo xam ne day dugg ci shirku rububiya te kooku day bokkaale bu garaaw bu doy waar ndax laa shakka ne mushrikoon yi nekkoon Quraysh sax nga xam ne ñoom la yonent bi doon woo ci lislaam te duggaguñ ci ñoo ñu xamoon nañ ne yàlla mooy bind yàlla mooy rey kon xamoon nañ ne aw fan ci loxo borom bi tabaraka wa taala la nekk kon yow mënoo doon ab jullit ba nëga ni nga wëlbati ko di jaxase mbir yi ba jàpp ne aw fan mën naa nekk ci loxol doomu aadama ba ngay wax nit ne ko yàlla diw sàngam guddal saw fan la kon fan yi ci loxo sunu borom tabaraka wa la nekk moom mooy dundal ku ko soob mooy rey ku ko soob bu waxtu faatoom jotee moo tax ma ne lahu mulku samawati wal ard mooy ki moom lépp loo xam ne mi ak suuf la nekk ci seen diggante yuxyi wa yumiit mooy kii dundal kii rey wa huwa ala moom dong mooy koo xam ne lépp la man dara tëw ko ci suratul mulk mi ngi wax ne tabaraka alladi bi yadihi al mulk barkel na moom mi nga xam ne loxoom ci la lépp nekk moo moom lépp wa huwa ala kulli cheyin qadir mooy ki man lépp itam alladi xalaqa almawta walxayaa mooy ki bind dee ak dund kon dee ak dund sun borom moo bind waaye yoonu doomu aadama nekku ci li tax mu bind ko it li yabluwakum ayukum ahsanu amala ngir ma nattu leen ba xam kan ci yéen moo gën rafet jëf kon kooku mooy sun borom tabaraka wa taala te ku am xel ku nekk xam nga ne diw sàngam ma ngay wax amaana yonent la malaaka la nit ku baax la naan yàlla na yokk saw fan xam nga ne bu doon yokk ay fan kon fanu boppam lay jëkk a yokk te amaana jamono yi ngay wax loolu moom mu nga ca xabru ya yàlla na ko yàlla yaram su fekkee jullit la na ci yooyu di ñaan sunu borom tabaraka wa taala tàllal say loxo sa borom di ko ñaan ñaan ñaan say ñaan ba àggal ne ko maa ngi la ñaan ci barkeb diw sàngam wala ci daraje diw sàngam loolu lu mat a wattandiku la jaam bi bu tàllalee loxoom boroomam na lépp effacé wu digganteem ak yàlla mu xam ne yàlla rek mooy joxe yàlla rek la ñuy yaakaar yàlla rek lañuy ñuy wéetal su loolu amee borom bi tabaraka wa taala dana nangu sag ñaan ba tax mu ne ida saalaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu daawata daa mu def charte ba mu ne ida daani jaam yi buñ ma la laajee nee leen ku leen jege laa luñ ma ñaan danaa leen ko may waaye ci chartub ne suñ ma ñaanee suñ ma ñaane kon jaam bi jamono yi mu yëkkatee loxoom di ñaan yàlla na wattandikoo wax loo xam ne day nuróog ne day ñaan keneen moo tax foofu duutu fa tudd aw tur kay jamono yi nga duggagul ci biir ñaan gi mën ngaa julli ci bi mën def ñaari rakka mën ngaa def lépp loo xam ne xeetu jaamu yàlla bu baax la waaye boo xasee tàllal say loxo sa boroom nag na lépp effacé wu ba ngay ñaan ba noppi jaam bi kon noonu lay ñaane moo tax jëlewuñ ci saxaaba ya wala yonent ba wala taabiyoon ya ak nit ñu baax ñu leen jiitu woon ne dañuy tàllal seeni loxo bi ñaan di wax ne yàlla may ma ci darajey diw sàngam yàlla may ma rek la ñuy wax ndax borom bi tabaraka wa taala bu la bëggee may dalay may ak mayam dara mënu koo tënk rawatina lu jóge ci mbindeef moo xam loola daraja la moo xam ak mbaax la moo xam lu mën a doon loolu nag ñu bañ koo jaawale jàpp ne nit ku baax daa amul daraja wala daa amul barke ukay am na daraja am na barke nit ku baax am na daraja am na barke waaye dañ laa ñaan loo wut nag yow ca loola booy ñaan sa boroom ñaan ko moom dong mu may la wa qaala rabbukum ud'uuni astajib lakum ñaan leen ma ma may leen teg ca ne inna alladina yastakbiruuna an ibadati sa yadxuluuna jahannama daaxirin mu ne ku ma ñaanul nag kon ñaan ku nekk xam na ne jaamu yàlla la mu ne kon ki ma ñaanul wala ki ki ma bañ jaamu nee na ñooñu mooy ñi tàbbi sawar maanaam ñi nga xam ne ak rëy jàpp na leen ba duñ tàllal seeni loxo seen borom ñaan ko kon foofu li nga fiy jële mooy ñaan ci boppam jaamu yàlla la jaamu yàlla nag boo koy defal yàlla doo ca boole mbindeef loolu moo tax tur yooyu ak wax yooyu ñuy faral di wax ñu fexe ba sellal làmmiñ yi ba lu mel noonu du ca amati borom bi tabaraka wa taala rek mooy koo xam ne su dogalee ne lor day dal ci sa kaw kenn mënu koo teggi su dogalee ne aw yiw day sotti ko kenn mënu koo téye kon kooku mooy sunu borom tabaraka wa taala moo jagoo loolu te ku gëm ku toll ne ki bind bindeef yi war ngaa xam yem yeeyoo nga defal ko ko te yemale ko ci moom bañ cee boole keneen kun kooku mooy sunu borom tabaraka wa taala moo tax yonent bi alayhi salaatu wasalaam bokkoon na ci ñaanam buy tagg boroomam allahumma la maania li ma yàlla yow yaay ki nga xam ne li nga joxe kenn mënu koo téye wala mu'tiya li ma manaata li nga tere it kenn mënta tax mu wàcc kon kooku mooy sunu borom tabaraka wa taala faaw ñu xàmmee ko ci wàllu tawxid léeg-léeg it nga gis ay wax yoo xam ne nit ñi danañ ko wax benn terme boo xam ne day faral di jaar ci làmmiñ yi lool mooy diw am na sens moo tax mu am nàngam wala man de damaa am sens tey moo tax mu mucc ci nàngam kooku musiba la kenn du ko wax li ci arab di wax li xusnil xas xasala kada wa kada maanaam sens moo am moo tax nangam am déedéet lay am wala muy ñàkk am kooku dogalu sunu borom tabaraka wa taala la yow kay da nga naan yàllaa ma musal tey moo tax ma mucc yàllaa ma jox tey moo tax ma am li tegu ci sama kaw yàllaa ko dogal waaye nag ne damaa am sens moo tax ma am nangam loolu du waxi jullit te lu mat a sellal làmmiñ yi la ba ñu wattandi ko lu mel noonu kon yow li ngay am li dal ci sa kaw ci ay xéewal ak ci am am loolu sax du sa pexem bopp waxumalaal laa na ngay wax ne sens la boo xam ne sa sens bopp la sens nga xam ne kenn xamut mooy lan sax foofu ci àdduna kon jàppal ne lépp lu ñëw ci sa kaw lépp lu la dal lépp loo am lépp loo xam ne mucc nga ca xamal ne loolu dogal sunu borom tabaraka wa taala loolu la jullit bi di wax su ko waxee delloo na mbir yi boroom mu doon ci moom ak cant su fekkee metit la woon wala lu safaan la borom bi tabaraka wa taala mën na ko woyefal teggil ko ko su fekkee ne xéewal la mu delloo ko boroom it mën na ko koo yokkal ndax la in shakartum la azidannakum la boroom bi tabaraka wa taala wax waaye bu joxee xéewal gi ba àggal kat nga jàpp ne yow sa sens moo la ko jox borom bi tabaraka wa taala mën naa jëlaatu xéewalam bàyyi la ak loolu yi ngay tudde sens nag ba xam lu mu lay lu mu lay jox kon mbokki jullit yi bunt la boo xam ne bunt bu yaatu la noo ngi ñaan suñu borom tabaraka wa taala mu defal ñu tawfiq saxal ñu wërsëgale nu mu sàmm sunuy cër